nga dëkk bu nekk réew mu nekk ak dëkk bu ne ak dafa am ay réalité réalité Touba du meer mooy tànn ay conseil du maire mooy tànn bureau municipal man tànnuma maire ay conseil yi tànnuma bureau municipal dañoo tànn ni ñu ma tànne comme conseil ma dugg ci conseil bi dañoo tànn kenn ki kenn kilifa gu ne ñu laaj la ay nit nga joxe ñu boole ko composé ko mooy conseil municipal bi ñu ci biir conseil yi ñu tànn adjoint maire yi ni ñu tànnee conseil yi ay kilifa ñoo tànn adjoint maire yi def leen ay adjoint maire boole ma ak ñoom mu composé bureau municipal ñooñu nag di ay kilifa yoo xam ne du amuma sañ-sañu nañ leen def walla nañ leen dindi wala di leen def li ma am sañ-sañ rek mooy suñ waree liggéey wala suñ waree wax wala suñ waree daj ma convoqué bu dee bureau municipal bi l' ensemble des bureaux municipal bu ma amee message bu may délivrer ma délivrer leen su fekkee ndigal lu ma jot la ma délivrer ko su fekkee ne xalaat la wala loo xam ne administration la jóge ma délivrer leen ko ñu def ci seen séance de travail lu ñu de loolu ma yóbbu ko ci conseil municipal loolu laa sañ ci bureau municipal loolu laa sañ ci conseil municipal parce que conseil municipal du entreprise boo xam ne da ngay wa jël nit waxantaan waxtaan ak moom certifié ko ab contrat di ko liggéey liggéeyloo jox ko cahier de charge boo xam ne dafay wala fiche de poste boo xam ne lii lay liggéey su ko defee nga mën a nga xam ne remplir na ay conditions su ko deful am na yenn sanction wala leneen lu ci war loolu dafa am différence di conseil municipal ak l'entreprise donc kilifa yi nga xam ne nag ñi ngi ci nekk ci conseil parce que parmi téeméeri conseil am na fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne seeti ay mbàkke mbàkke lañ di ay kilifa ñi ngi ci biir conseil bi ñenn ñi ay conseil lañ ñenn ñi ay euh, membre di bureau municipal la donc di adjoint maire donc loolu nag ñoom constaté nañ wax nañ ko plusieurs fois ne absence yi dafay metti pourquoi toujours ñuy absenté war nañuy ñëw di teew ci liggéey bi di wax xëy na loolu ñoom ñoom gën a placé pour wax ko ñoom wax nañ ko mais man am na ci loo xam ne sama taalibe permettre mu ko am na ci loo xam ne du sama sañ-sañ parce que du maa leen tànn du maa leen fii boo waree teew te teewoo donc absence donc dafay dafay dafay porter préjudice ci ci ci ci bépp lépp loo xam ne nii da nga ca war a am impact donc loolu loolu dafay parce que buñ la wooyee ngay tardé sax yéex a ñëw sax dafay porter préjudice dafay am impact ci ci ci ci ci démarche waxantuma laa nag absence